loolu moom boo leen yaboo ngeen tëddi nalaw <laughs> ok bu dee nag ay agression banditisme cambriolage yooyu moom bu localisation yooyu moom nalaw nañ am na ma jot seen benn message quoi ah, ma liiral leen ko waaye gars yi non waaye Sénégal ndeysaan seen nguur seen nguur war nañ liggéey de ils sont nuls sont nuls nuls à chier man xaw ma ñoom nan affaire yi nan lañ ci mën a naxee ay sénégalais quoi <laughs> <laughs> ñoom seen données yëpp mi ngi ci service orange orange ngay dem rek ñu jël seen données yëpp fii dama jëli données jàmbur dama rek jóg naan da ngay dem jëli données jàmbur ko <laughs> dama ne même dama ne internet laa la wax internet balaa ñu laa jox dëgguma internet maanaam réseau bu fekkee ne da jël benn euh, ligne téléphonique balaa ñu laa jox <laughs> sa waaye loolu loolu yombul de ñu ngi ñëw rek ne kii laa soxla rek jël affaire am boo xaar ma leen benn message ñoom nee nañ dañuy jéem dañuy dañ may jéem a euh, parce que message nag di bëri quoi gars yi dañuy envoyé envoyé sénégalais ndeysaan ak ñoo xër macha allah xaaral ma kii quoi waaye yàlla bu ma waaye ma xool leen liir leen quoi nee nañ da xoolal photo audio audio lañ ci def audio audio nee nañ nee nañ man la ñuy dóor quoi <laughs> salut Mollah Euh, je m'appelle Mohamed, j'ai 20 ans, je suis au Canada sous le statut d'étudiant international. J'écris ce message dans le but de vous demander si vous pouvez m'héberger chez vous. <laughs> Dégol de, amul photo amul dara nag de. Si vous pouvez m'héberger chez vous. On peut le qualifier comme message inopiné, mais de ce que j'ai vu en faisant mes recherches sur vous, je pense que vous serez la personne idéale pour me mentorer durant mon périple au Canada. J'ai de famille dans en me qualifiant de jeune homme, je dois sortir de ma zone de confort pour me confronter à la vie, la vraie. Je pourrais évidemment participer aux dépenses et inscrire mon nom dans le bail de l'appartement et d'autres documents administratifs comme preuve de confiance nee nañ nga dugg foofu xoolal amul photo amul dara amul dara dara dara dara quoi cest dire ñu créer seen benn benn benn gère base dañuy jéem a localiser man fan laa a quoi léegi. muy étudiant international amul mbokk amul dara te dama bëri xam-xam dafa bëgg bokk ak man dëkk ak man pour après ma héberger ko après <laughs> man lii rek ma ne ko lii Sénégalais yi kon kon yéen seen seen police beeg yooyu dañuy jàpp nit ci lii quoi mais ça c'est des bêt c'est des bêtises ça <laughs> mais dégg ngeen affaire bi ah. J'ai 20 ans, je suis au Canada sous les statuts d'étudiant international. J'écris ce message dans le de, de, de vous demander si vous pouvez m'héberger chez vous. On peut le qualifier comme message, message inopiné, mais de ce fait, j'ai vu, j'ai fait des recherches, j'ai vu que borom xam xam nga dama bëggoon ñëw saret moom même si je pourrais évidemment participer aux dépenses ou inscrire mon nom dans de l'appartement, des documents administratifs comme preuve de confiance. waaye ku ko tontu ma dem sama yoon man ma ne golo yi man mu yeewoo rek àdduna tukki quoi ma yéen kii kay kàccul sax day day meew meew bu tàng lay def di ko naan moo ko naan de moo tax bu ko moo ko tontoo rek yàllaa ko tontu <laughs> doo ko def kii laa yooyu jaabul sax da nga koy bàyyi noonu rek da koy liir vie ba pare bàyyi ko noonu xam nga boo ko tontoo da dana kii yaa ngi dund mais bu gën a métti mooy vie mais waa ji du la mus a tontu giiru dundum du la mus a tontu waaye <laughs> nguur gi ay ngaaga lañ quoi <laughs> te loolu wala depuis semaine bële maa ngi la koy doon wax ne depuis semaine bële ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi kuntu kurti kurti ci man. kurti kurti depuis première semaine ba lañ dugg ci administration bi gars yi muccool ñu commencé daw ci sëriñ ya ñooy waxate ñu ñëw commencé naan dañuy jéem a corruption ma bañ proposition lu ne kaay ñi ngi ñëw donc toog ak yow la nga laaj yëpp ñu jox la ngir yàlla nga arrêté audio yi bu ko génne bër di bër mën a teg ba à la dernière minute ma ne bëgguma leen a gis ñu seen yaakaar tas léegi ñu ko xaaral ñu jéem xool xool nuñ ko cambriolé <laughs> loolu pare na léegi ña ngay commencé xool adresse <laughs> xam nga lii lépp lu ko waral nag ah audio yi audio yi daal audio yi audio yi leen tere nalaw pale ngay dama ko poñe pale non dama dama ko poñe dama leen def ngaaka ay ngaaka dëgg laa def dama leen waye di loo ko dama leen waye seen système bi laa dugg waye di loo pale bi yëpp def leen ngaaka poñe leen ba mënuñu bouger nokki sax mënuñu ko <laughs> may bandi ma toog laay toog rek ne leen ree ma leen yéen wallaahi bu ma ñëwoon ci police bi maa jiite police bi nee naa leen esprit la bandi maayen la bu ma ñëwoon ci police bi man maa ci ay affaire système technique man maa leen koy jox <laughs> gars yi ñu ngi taw de ñu ngi taw gis nga affaire audio bii nii nee naa leen audio bii audio yi tax na Macky Sall dem Touba. audio yi tax nañu dóor pression Macky Sall dóor pression Kaolack ñu woo si mbay Baye ne ko arrêtel ojo yi ojo yi tax na ñuy menacé ojo yi tax na instant yi nalawatuñu audio yi tax na euh, Ousmane Sonko dafa waroon dem ci procès ba dafa waroon dem ci comment dirais-je enquête yi ñu euh, euh, ñu ñu ñu entendre ko audition yi gars yi ko waxuñu ko dara ba suñ jonn yàlla tey Ousmane Sonko xamul kañ lañ koy jël <laughs> gars yi yëpp lañ seeyam lépp lu ñu jàppoon bàyyi nañ ko daw lu ñu jàppoon bàyyi nañ ko daw même temps yi passé bëggoon nañ def benn conférence de presse boo xam ne est-ce que xam nga sama révélation yi moo tax ñu bàyyi ko. billaay wallaay dañu conférence de presse pare woon nañ ba war ko def conférence de presse ñoom waa waa waa APR ma live rang rek gars yi seey rang gars yi seey <laughs> conférence de presse boobu ba léegi maa leen di xaar bañ ma wooyee ba léegi nag ma ne ah conférence boobu gars yi waaj na ma ah gars yi yàq nga seen conférence de conférence de presse boobu gars yi dellu nañ ba léegi seetlu leen dara ñoom ñoo gënoon bëri ay nit yuy génn di def ay live di saago Ousmane Sonko est-ce que gisati ngeen ci kenn kañ dama la xool leen seen page yi kañ lañ gëj a def live pro Macky yi doon jàpp Ousmane Sonko di ko saaga suba ak ngoon dem leen xool seen page yi kañ lañ gëj a def live te ñu ngi dund de <laughs> dem leen xoolee même seen liveurs yi sax dañoo arrêté même seen librairie muut lañ def ça fait deux semaines waxuñu boo ko compté ci tey deux semaines benn ci ñoom seen librairie presque génnu presque génnut di wax <laughs> maa ngi toog rek def dekk <laughs> léegi au début dañ ne woon viol la à main armée deux fusils léegi ñu ngi ñu ngi bëgg a changer affaire ya ne léegi ay attouchement sexuel la quoi <laughs> début bi ñu ne viol à main armée avec deux deux deux deux pistolets ne dañoo enceinte <laughs> Adji Sarr léegi léegi ñu bu ko def ñu disqualifié fee nee na léegi attouchement sexuel lañ koy def <laughs> tey yi audio yi audio yi dina fi dina fi jëfurloo ay nit disqualification des faits de de viol à attouchement sexuel ñu <laughs> jël euh, audition yi reporté ko jël seen conférence de presse reporté di tax pale ba di pale bi di lox <laughs> ñoom moo tax ñoom Pape Alé dañoo muus waa ñoom Babacar Touré Kéwalo ñoom ñëpp ay MC Niass ku nekk naan bul génne bul génn moo laa téye ko foofu parce que tant que yaa ngi ko téye duñ nalaw tant que yaa ngi ko téye duñ nalaw parce que dañ naan waa ji yor na audio mystique li mu yor nii mun nañu ko dóor n'importe quelle heure heure yi bokkul mun nañu yeew rek gis ko ci internet dañ nañ yeew rek gis ko ci duñ nalaw parce que da nga ne bu ma fi tëddee di nalaw Macky Sall bu ma fi tëddee di nalaw mën naa yeew rek quatre heures du matin waroon xëdd rek fekk moo laa door na ko wuy duñ nalaw ñi ngi veillé fu nekk nii cadre rouge yi fu ne nii ñoo leen di defal ay ay lee ay lee mi cadre rouge yi de ñu ngi dóoral ko Macky Sall lee toute laa nuit Macky Sall day toog léegi ñu koy leeyal lan lay bañ naloo rek wala mu far bët rek ma dóor tëll mu mu yow lu xew lu xew dëkk ba oh, mu a waa lu xew ñu ne moo laa ko wàcce ci guddi gi de ci guddi la ko wàcce wuu ah, waay kii bi lu mu tëddati xaddis ba wàcc na tey ci guddi lay lay la du comprendre <laughs> moo tax fu ne ne nelawatu maa nga toog rek ñu naan leeral leen ma ñu naan ah lee bi moom kañ lay jeex ma ah, waaye dóoral dóoral dóoral na tàng rek na tàng na tàng yokk ci pasti bi yokk ci pasti yokk ci meew ñu koy leeral <laughs> ñu koy meewal muy veillé veillé jamonoy booy magi day veillé léegi toute la nuit <laughs> di ragal audio bi bettu ko ndaw la bett mën la <laughs> élément bi daw ne bërët mais nag bu mu leen bett de noonu da jëkk non garde rouge ñoo koy leyal garde rouge ñoo ñoo koy dóor ay lee <laughs> te nag gars yi da ngeen da ngeen lekk seen gars yi xanaa xamoo les répondeurs automatiques là ñin doon yónni di leen jox xaalis ñiy saaga mais ni ngeen leen di def ñaaw na yéenee féroce da nga gis benn répondeur automatique bu ñëw waaye kii dee duul nga gis gars yi jàpp ko rang bum tàng kàng ñii di mbéj ñii yéen ni ngeen di def ñooñu tam da doo leen def ndànk yéen tamit yéen bu dul rëcc jarte yàqi gars yi dañuy ñëw fekk ci live wala benn benn waay bu commenté rek benn commenté naan ay kii day fenn kii war nañ ko déglu mais da ngay gis quarante réponses yow ba waa ji daw waa ji dootoo ko gisati gars yi di ko saaga ñii di ci xëpp kaani ñii di tàngal ba mu ne bërët ne ni ngeen di def sàcc sàcc Macky Sall yi bon na de <laughs> sàcc Macky Sall yi ni ngeen di def bon na de <laughs> ak sàcc affaire yi gars yi ñoo feros noonu di jë non gi nga peuple bu déterminé wu moytul peuple boobu am na jamono joo xam ne ñoom dañ fay nekkoon rek di fen rek yor nañ audio yor nañ vidéo ay waaye li ñu yor ci preuve ana ñooñu ana audio ya boobu ñun ñi ngi rek toog ñun ñu ñu ci audio ñu yor ay waay futteeku yaramu neen bi ay waay caleçon Ousmane Sonko bi wuxu ay waay lii fen fen rek la ñuy def ñoom seen dund rek dañ koo fen fen rek amuñu argument amuñu bë ay waay wuu carax yi duus yi mu solo non ñu gat gat un an mënuñu génne dara dara dara un an <laughs> mais yéen effet laser yi ngeen def gaay gaay <laughs> Macky Sall yi <laughs> dañoo ñoom bu match aller bi ñoom ñoo moomee woon jàpp ñu di ñu dóori laser match retour bi ñu dóor leen quarante zéro ba pare dóor leen yéen laser fu mu ne nii fu ñu gis laser taw moo tax dañuy léegi waxtaan bi doo ci gis kuy grillé ñëw tëdd ku ñëw dóor benn gars yi dóor ko 40 man dama ne amul kenn ku fa taxawaalu ma ne Koura Macky moo amee woon télé rajo yi de nee ci ay saaga la mujj waaye dañuy nangam daan mel ni ku mandi yooyu nangam daan nangam dafa kii <laughs> booy bii dafa feros de fii lay toog ci ruqam rek di la ko largué teng rek toogaat xam nga koŋ yooyu koŋ yooyu dul yëg yootal rek ni nii. ak jaaro bi ni nii yootal ba jàpp Coura Macky rek na ko reng rek téewaat sama loxo nii mu ne nii ku ma koŋ ku koŋ di miir ku koŋ <laughs> ma toog rek ni nii bu xoolee bu xoolee ma toog na mu ne waaye ku ma koŋ waay di miir ma yootalaat keneen ni nii maître El Hadj rek dugalaat loxo wóoy ku ma koŋ oh El di miir wuy sama nday ku koŋ ku ma koŋ oh ku ma koŋ ku ma koŋ ma naan di sama ku ma koŋ dégg ku ma koŋ ku ma ñoom ñëpp nag xoolal ñeneen ñi dégg ay koŋ koŋ koŋ rek ñëpp de wëre daw ñoom ñëpp a nga daw kenn desatu bi ku koŋ kay amatu fa ñaar laa koŋ laa la wax ñaar xaw ñett Gabriel xaw ma kan rang moom moom ñoppati rek laa ko def ñeneen ñi rong rong koŋ ku ma koŋ ngi partout ku ma koŋ ñeneen ñi <laughs> ñeneen ñi moom lañ dégg rek <laughs> almet jël ma kenn desatu fa liveur amatu fa affaire amatul liveur amatul casseur amatul dara ñoom ñëpp nee nañ ku la ñuy bañ ku ma koŋ gi la bañ de rang koŋ tooga tegale sama dugal sama loxo ci poos nag di way hmm, hmm, wala may cible ñu ne kuma koŋ kuma koŋ wóoy kuma koŋ wóo kuma koŋ wóo kuma koŋ ñu doon taxawaalu foofu ñëpp ànd ak ñoom daw kenn desertu fi yéen war ngeen maa sant ne seen télé yi amatul APR amatul benno kenn génnatul ñëpp ngi seen pooju nday yëpp toog ñëpp naan kuma koŋ yaay wokkal ma kuma koŋ yaay wokkal ma kuma koŋ mbalit gi ñuy yónni yéene a leen di rajaxe effet laser ku ñëw ne kii day dul gars yi fekk ko fu saaga maamam ba mu doy xepp xepp xepp dóor ko marquage à la futti ko def ko taatu neen taxawee ne waaj a daw <laughs> tey rek ñu dee Sénégal fu mu dafa neex Sénégal dafa calme fu mu ne ñëpp mën nañ def vacances tekk la def daw nañ télé daw nañ rajo daw nañ journaux tekk journaliste daw toog ku nekk naan mbaa moolaa du ma ci boole mbaa moolaa du ma ca tudd ña ca bokk nag ku nekk di loxo ku nekk di loxo wuy sama ndey dina ma koŋ de wooy wuy sama xam naa dem mi ngi ñëw ci man ma ngi ñëw ci man fu mu ne nii panique totale panique générale <laughs> pale ba nag Macky nalawatul <laughs> chaque jour mi ngi commandé lee <laughs> eh, maa lépp lu gars yi ragaloon mën naa leen koy donc suba sama gars Aïssatou Diop Fall ñoppati laa ko def mu daw waaw mais suba incha allah mooy live live and direct suba incha allah live bu doy nag suba ngeen di dégg audio yi suba ngeen di gis lu doy suba ngeen di gis tout contenu ñaari audio yu explosif non de Dieu c'est incroyable demain incha allah on love <laughs>